alors jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal yéen a ko doon laaj waaye mbokk yi yaakaar naa indil naata indilaatal naa leen seen waa ji Serigne naa jóob nekk na koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi li ko waral nag mooy dafa def ay preuve ci xam-xam teg ko ci xam-xam waaye nag def ko ay def ay preuve ci asraar réew mi yaakaar naa kaaraange jooyatuñu ko ñu bari jooyatuñu ko ndax moom ñu bari jooyatuñu wàllu nopp wàllum ngóora kattan leneen ak yeneen gannaaw yàlla mi ngi ciy bay waaram bu baax a baax a baax tey ñu fekk ko makaanam bërëbam bi nga xamante ni fii lay liggéeye ñu fekk ko fi nag gis melokaan bi nga xamante ni mi ngi ko woon waaye ñu ñaan ko ne ko internet yi ñoo la soxla même boo ko deful ngir ñun nga def ko ngir ñoom faw nga génn wax dafa génnoon ne dossier Ousmane Sonko aji Sarr bi mi ngi sama loxo le 16 biñ ko jàpp dañ koy renvoyé ndax Ousmane Sonko gars yi jekkooguñu ko ma ma toog xaar le 16 jot ñu renvoyé ko sama xel dem ci moom ma ni sama waa ji faw ma dem seetiwaat ko ndax dañ ko jàpp le 23 mu ni ma faw boo dikkee naa la wax ci le 23 boobee nan la ñuy def ba génn ci ndax deret dina tuuru ndax jàmmaarloo dina am ndax Ousmane Sonko dinañ ko yóbboom déet ndax sax Ousmane Sonko dina wuy ji waaye lu ci mënti xam tey dina leer ci biir émission bi ndax sëriñ bi dina wax ci diggante boobu waaye dina wax tamit ci aji Sarr deux ans wa ngi nii aji Sarr jàppal Adji Sarr indil Adji Sarr mu ni ma jigéen la am na foo xam ne bu fa taxawul woon boobu ba léegi coow li suulu na waaye Adji Sarr nee na ma dafa am fu mu taxaw fu wóor moo looloo ko may fit waaye sëriñ dinañ ci xuus dinañ xuus ci actualité lu lu sore sore sore balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñ Cheikhouna Diop xasida mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah barkeb borom Touba barkeb borom Touba barkeb borom Touba barkeb Cheikh Ibrahima Fall Lambaye Mouridine wajaal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziare. Mm-hmm. di jiital ci suñum nuyoo ak sunu ziare rek ñaanal xalifatul am di tarixatil muridiya a cheikh mouhamadul muntaqa mu yàgg fi loolu tànn ku wér mm-hmm. waaye di ñaanal bu baax a baax umma islamique bépp yàlla sunu boroom may leen tawfeex tey it yàlla dolli jàmm ci suñu réew mi Euh, di ziare bu baax a baax nag waa Allô Sénégal nga xamante ne si maanaam tey sax xawoon ngeen ñoo fekk ñu xat lool ah, waaye nag day loo xamante ne si. Mm-hmm. Euh, su leen ñu ko ñaanee sañuñ leen koo bañ a may. Mm-hmm. ndax li tax mooy dafa bari yoo xamante ne si waxoon nañ ko. Mm-hmm. ba ma ko waxee dama leen wax ne lii ma leen wax bu amut na ngeen ñëw ne ma sëriñ bi la nga waxoon amut. waaw waaye alhamdulilahi rabbil alamin ba ba ngeen fi dellusiwaatee da nga ne ma sëriñ bi li nga waxoon dafa am. kon tey faaw ñu ñëw dekkaat la suñu micro ndax askan wi dañ laa soxla. dëgg la fekk ne yàlla xam na ne yéen a ma fekkoon ci xalwatul xafif boo xamante ne sii mm-hmm. maanaam mën naa ne waxtu wi mu war a démarrer léegi mu jot waaye nag kon dañ koy daal di tënk rek incha allahu taala. incha allahu taala ñu tënk ko fi ñu koy njëkkee mooy ci wàllum seet dama la cee laajoon keroog nga am loo ci wax ma daje kenn mu ni ma lam ca wax dëgg la. ndax mm-hmm. jëflante na ak yow ndax jëflante na ak yow ci seet. Mm-hmm. dama bëgg nag tey seet googu noonu mu gën a yaatu. Hmm. ba ñëpp jariñu ci. waa seet dafa nekk buntum ñaan boo xamante ne si tey day bari ñoo xamante ne si da nga leen dégg ñuy wax mbirum seet te maîtriser wuñ lan mooy seet. waaw euh, li ma ci gën a intéressé nag mooy seet na ma ko yàgg di waxee ci mboolem émission yi nga xamante ne si jaar na fi. waaw ma ne leen seet de baat bi dafa yomb tey boo gisee itam ñu baree bare nekk ci erreur. Mm-hmm. di làmbatu ak daj. wala yi saa ñuy talax-lax yi di dem wala ñu nekk cee xat-xat dafa fekk ne dañu leen a seetal. Mm-hmm. wax leen loo xamante ne si maanaam nekkul seen mbir. ndax ni mu dansé. ci nga dem ci médecin boo xamante ne si jàngul médecine ba noppi di la faj. Mm-hmm. noonu la dansé itam nga dem ci sëriñ boo xam ne mënta seet ba noppi di la seetal. ndax ki nga xamante ne si daf laa seetal ne la yow sa biddiw zuhratu la. Mm-hmm. fekk sa biddiw mustara la. ngay jël sarax yi nga xam ne moom la zuhratu laaj nga di ko def kooku ay xat-xat la ci dugal mhm. ma waral yii saa nga naan ba ma jëflanteeg sëriñ ba ba tey day mel ne problème yi sax daa gën a yokk oh. fi ne foo fekk lu mel noonu rek baat bii ma la wax taxaw ci tembe moo ko waral mhm. yii saa ngis koo xam ne daa am ay jafe-jafe dem cib sëriñ génn jafe-jafe gën a yokk mu jaar sax faf bëgg a xalab sëriñ sépp fekk ne la ko mooy daa dem fekk ci ku mënta maanaam mu di ko seetal loolu ni médecin bi nga xamante ne si maanaam jàngul médecin ba noppi jël ay pikiram ak ay ràbbam di xotti biir ak opéré jam nit ñi waaw loolu muy def ni mu nekkee crime mm-hmm. noonu la nekkee kirim itam ci sëriñ bi nga xamante ne si maanaam mënta seet ba noppi di la seetal ndax kooku daf lay rey ci wàllu baatin personnellement oh. daf lay rey ci mystiquement personnellement mm-hmm. parce que daf lay joxañ ay jour yoo xam ne jour yooyu xam nga tey ki xam ne biddiwam dafa nekk alxamis mm-hmm. nga xooloo ko jouram dafa nekk alxamis nga xooloo ko ne ko sa jour la lépp lu muy wut mu di ko dàkk bisub àjjuma te bisub àjjuma day tëju ci moom day fàtt Mm-hmm. mbiram alxamis lay ubbiku alxamis ku mu ci songal da daan alxamis lu mu ci lijjanti daf koy am alxamis ko yàlla dun may alxamis bu ci ñaani woon ngoro dañ koy dañ koy may alxamis bu ci déposé woon passeport day am alxamis bu ci déposé woon visa day am mm-hmm. alxamis bu ci doon trouvé bac day am alxamis lépp lu ci sàkku ci nit daf koy am parce mm-hmm. que biddiwam moo taxawee noonu yi saa ngis nit jour biddiwam bu ci àggee su la waxoon dara su koy soo koy defal sax doo ko tey parce que saa ne si loola muy sàkku ci yow force daf koy am loolu nag li kon nit di mën a xamee mooy dama laa waxoon ne keroog ne. juróom yi li fekk sëriñ bi maîtrise ko mënta nekk seexul asraar. mooy muy xam-xamu biddiw. waaw bu baax a baax nag. waaw xam biddiw yi xam yen heure la ñuy génn xam yéen heure la ñuy daw xam doomu aadama biddiwam ban heure lay génn ban heure lay taxaw xam lan mooy saraxu biddiwam ba noppi nga xam lan mooy ilmu tabian ilmu tabian mooy nga xam xaatim bii tey soo ko daggee maanaam xaatim bi lañ ko war a wékk wala lañ ko war a suul wala lañ ko war a sànni ci ndox wala lañ ko war a tàngal yooyu yëpp fi mu nekk nii tamit boo ko xamul tey mhm. nga xam ne mbiram comme ngelaw la a tukki nga xam ne xelam day rek ci tukki nekk ci tukki chaque jour maanaam waral mooy fekk koo xam ne bu ko liggéeyee xaatim ba noppi xaatim ba sëriñ dafa war a a jël xaatim bi daf ko war a wékk bu ko defee xaatim bi di def nii dem a ñëw nga xam ne mbiram du taxaw su déposé rek day dem parce que koo xamante ne si mbiram dafa nekk xawaayu Mm-hmm. tukki wala dox wala dem xew yooyu da yomb ci mbiram mm-hmm. su ko defee nag su nekkee ne da nga koo defar xaatim ba noppi daa dem ne ko gas ko suul wala nga sëf ko wala mu diis saa bu bëggee jukki itam jëmm ji mooy diis maanaam xel mi mën naa dem waaye rawxaan mi mooy toog loolu itam noonu lay demee ci nit ki nga xam ne daa tukki bëgg a ñibbisi nit ki nga xam ne daa ñëw bëgg a tukki wala mu demoon bëgg a delluwaat yooyu yëpp fi mu nekk ni man naa arrivé ci lii ma la wax waaye su nekkee ne sëriñ bi daa xamaan mu tabax rek su la liggéeyalee pour nga am ay këyit lu yomb lay doon moo tax ma di la wax ne sëñ Lamine waaw man këyit li ma ciy liggéeyal nit mm. képp ku ma seetal mbiram ba noppi li ma ciy liggéeyal nit ci këyit wallaahi wa rabbil kaxambati dama koy defal ba mu gis mu door maa fay laa ilaaha këyit moom mooy loo xamante ne si man du ma ci laaj kenn dara déedéet ku mën a doon waaw dama naan la yónnee ma sa date de bi nekk ci say këyit sa tur sa turu yaay fatal sa loxo nday joor bii nga envoyé ma ko ma xool say kayit wax lu ci lu dul dañ su ma la ci waxee lu dul dañ ba noppi la ma la cee defal dama lay jëlal garanti dama naan la dama la koy defal bul ma yónnee dara ñëwal bayeek si fii mhm. maanaam da ngay ñëw ba sama kër gi doon maa fay ñi ma ci jëflanteel ñëpp xam nañ mën naa laa génneel fii liste boo xamante ne si maanaam buñ doon téeméeri nit du ma la wax ne ñëpp de yàlla may na ma ñoom ndam ndax xulil xaq walaw kaana murra nit moom lu métti métti waxal dëgg mhm. euh, waaye buñ doon téeméeri nit quatre-vingt-dix yëpp maanaam ñëw nañ ba fii yëkkati ay teraanga yu bëree bëri jëflante ko man ci yoon wii ma ma ma la wax te loolu lépp itam mooy li ma lay wax sëriñ bi itam kon faaw mu xam ilmul adat maanaam mën a wàññi bu baax a baax mën a xam chiffre yi mhm. parce que doomu aadama léppam chiffre la waaw doomu aadama léppam chiffre la. asa maanaam yàlla suñ borom tabax bii néeg bii sax ci chiffre lañ ko lañ ko tabax. waaw àdduna sépp ci chiffre la ko la ko suñ borom tabax. fi mu ne tey kër gi tey boo ko doon tabax bala nga cee teg wenn birig architecte bi dina ñëw natt ko. jël ay chiffres bind palant bi nangam bu noppee itam kii ñëwaat xam-xamu chiffre lay indi mhm. muy mètre bi lay indi ñëw jël fii teg natt nangam natt ko ba kii bu ñëwee itam kii ñëwaat xam-xamu chiffre lay mhm. indiwaat muy day jëlaat corde gi dawal waaw kon yàlla suñ borom lépp ci chiffre la ko bind boo bëggee xaalis sax dem ca banque ba waaw boo bëggee xaalis bii sax ci chiffre lay dox doomu aadama at lépp lu muy dox moom ci moom ci chiffre lay dox su ko defee kon doomu aadama bi day jot na kon mu xam mu tabia bu baax a baax maanaam al mu bu baax a baax mhm. waaye bu xamee loolu ba noppi itam du ci am faaw mu xam lan mooy rawxaan rawxaan nag ñu bëree bëri dañ koy jaawale ak tabian waaw tabian nag maanaam mooy trois bi yu ñeenti tabian yi am mooy trois bi yu hawaa yu maay yu naar yu su ko defee li ñuy wax euh, rawxaan nag day bari sax sëriñ boo xam ne boo demoon ci danaan la sa waaye may taxaw pour xamal leen la rawxaan hmm. jëmmi doomu aadama du ko am jëmmi doomu aadama du am rawxaan du am rawxaan sëriñ boo gis mu taxaw naan la sa rawxaan Euh, dañoo tàmm nag baatub rawxaan wala yooyu. Mhm. maanaam moom lañ mën a jëfandikoo waaye nekkul loo xamante ni si doomu aadama day am rawxaan rawxaan li muy jariñ mooy. waaw tey man su ma doon ñaanal sëñ Lamine mi mhm. sëñ Lamine nekk ba États-Unis mhm. wala mu nekk ci àll boo xam ne mënuma koo yónnee dara. ci boobaa ci lay laaj ma jël mbirum euh, Lamine jël turam ak turu dagg ci rawxaan boo xamante ne si moom lay tàggat pour mu mën a dem fajal ma maanaam aajo yi Mouhamadou Lamine moom ah. loolu mooy xam-xam rawxaan loolu nag xam-xam bu sensible la boo xamante ni si moom it sëriñ bi bu ko maîtriser wul di la ci defloo dara ba noppit daf lay lor bu ko defee mu nekk xam-xam yoo xam ne suñ ci doon développé doon xuus duñ fi jógee duñ duñ duñ fi jógee waaye am na loo xamante ni dañ la cee takkal capitaine ñu nangu ko ñu ñàkk ko nangu sa sëriñ sa mbokk sëriñ si nangu nañ ko xam na mm-hmm. Mm-hmm. muy wàllu nopp heure boo génnee ci say waxtaan. Mhm. bi ngay génne ci nopp. mën mhm. na bañ a bokk ak bi nga génne woon bii paase mu mel ni da nga ko maîtriser lool ba toog ci. waa tey sax dama danaa leen may turu jinne woo xamante ne si day nopp. turu jinne buy nopp. woo xam ne bu la neexee mën nga ko defal sa bopp doo ci am genn loraange. Moussa bindal. danaa leen may turu maanaam turu rawxaan woo xam ne dañ koo tàggat muy dox ci nopp. danaa leen may itam benn baat ci alxuraan boo xamante ne si dafa gaaw ci nopp. Mhm. waaye dinaa leen may itam salaatu goo xamante si su nekkee ne nit ki dafa bëgg daraja mm-hmm. wala mu bëgg yëkkatiku mm-hmm. wala mu bëgg maanaam bayre mm-hmm. maanaam na koy liggéey est que duma la ko jël PV te yooyu yëpp maanaam dama leen koy dama leen koy may gratuitement bala maa ñëw ci dëgg-dëggi nopp nopp waaw ndax nopp dafa nekk lu sensible loo xamante ne sii bari na doomu aadama yoo xam ne ci leen jaare sax faf bàyyi ñaanlu mooy tax mooy sëriñ buñ dem pour di ko defloo duñ ca am ndam waaw wallaay lancim sama téléphone bi heure bu mu xëyee danaa dégg baatu sëñ bi nag lii ma lay defloo fu nekk dem naa ko su ma la indiloon kaye bi nga xam ne ci lay bind turu ñi nga xam ne ñu may noobalit da xam ne maanaam lii li ma ci def ci résultat benn sëriñ bu ko masa def fii ci réew mii ñu taxaw amul mm-hmm. parce que ne woon naa la loolu dama cee yor lu ñuul kukk di ko ci liggéey loo xam ne bu ma ko tàggatee fi ma taxaw fi ma toog di ko def bu ma teggee sama tànk gis ko maanaam naa noob goo xamante ni si su ma ko liggéeyee ba noppi dama koy taal sawara lay doon bu sawara wi tàkkee balaa fay ki nga a dégganteel lan la woo mbaa mu gis gisu doom jàmm bu la doom jàmm loolu dama koy def ci nopp waaye fi mu ne man newoon naa la du ma nopp nit kese. Mhm. nit ki suma la ko noo xam nga noop mooy nooyal xolub nit ba mu bëgg la topp la. Mhm. waaye fi ne dama la koy nootal ba nga xamante ne si maanaam moom ci jëmmum xelam jëm ci ku dul yow du sañ a def dara te tàggu la maanaam lépp loo xam bu yoroon alal di ko dénkaane sax dana ñëw ba ci yow ne la sama alal jii kat dama koy ko bëgg a loo ci xam. loolu dama koy def. waaw mooy not nit ki ba nga xamante ne si maanaam. bu tëddoon di nelaw bu yeewoo xel mi dootu jëm ci ku dul yow te loo ko wax bu ko defut doom jam loolu dama koy liggéey te loolu su ma la ko liggéeyee bu la neexee ñu ñu dind ko man fi mu ne ni ma manee boole ñaari nit. waaw nu ko raw laa mën a tàqalee ñaari nit nag. déet waay. loolu nag koy du koy liggéey ci waaye maanaam xam bi ma ko jàng. waaw lépp loo xamante ni si xam daf koo laaj man dama koo gëstu ba noppi door a ñëw toog di ko wane. ni ma mënee boole ñaari nit bañ mel ni mburoog soow. waaw nga xam ne dootuñu tàqali ko. Mm-hmm. noonu laa mën a tàqalee ñaari nit. ba nga xamante ni si maanaam kenn dootu ci bëgg a xool sa moroom man na maa fekk ñaar ñoo xamante ni si maanaam comme mburook soow ma tàqale leen. waaye yooyu du du xam-xam yu ñu laal yooyu day am yu koy waral yoo xamante ne si. Euh, da leeral moo jot rek nga leeralaale ko waaye yooyu duñ ko du duñ ko kii. su ko defee yow mi nga xam ne yaa ngi may seetaan. waaw jëlal ma may la tey genn noob goo xamante ne si bu la neexee defal ko sa bopp baat bii ma di leen jox. Mhm. maanaam baat bii. waaw. baat bii ma di leen jox. ñu di ko wax yaa qahramaanu. Mhm. baat bi yaa qahramaanu rek soo ko bindee nii ma ko bindee. yaa ngi seetaan nga bind yaa qahramaanu nii nii ma ko bindee. waaw nga bind turu ki ngay bëgganteel ci kaw bind turu ki ngay bëgganteel ci suuf. nga bind sa tur ci kaw. waaw bind turu ki ngay bëgganteel ci suuf. waaw bi nga defee loolu ba noppi maanaam wutal netetu jii ngay wut. netetu netetu. maanaam laxase ko sotti ko ci moom lañ koy neexalee moom la ñu neexalee baat bi. waaw bi nga ko ci lëmasee ba noppi. maanaam nii ma ko def tuuti da ngay wut ngaraat koy aw da ngay dem ñu ñëwal la ko defal la ko téere mhm. bu la neexee takkal ci sa ndigg bu la neexee takkal ci sa baat wallaay lancim ki nga ko def da nga ko mat maanaam dan la topp maanaam li fekk téere baa ngi ci yow waaw bu bu bu xasee tàqali ko yow nag lii ma la may nag man dama lay wax ni mu demee téere bi bu waddee waaw ñàkk nga waaji ah bu réeree ñàkk nga waaji lii ma dina wax lu garaaw la loo xamante ni si maanaam defal nga isin nga xool mhm. waaye wallaay lancim téere bi boo ko amee li fekk mi ngi ci sa bopp wala li feeg mi ngi ci sa ndigg wala li feeg mi ngi ci sa ndesaaleb lal. Mhm. maanaam kooku moom xelam dootu jëm ci ko dul yow. bu la neexee teg ko ci sa lal. waaw bu la neexee teg ko ci sa lal bu la neexee takkal ci sa ndigg bu la neexee takkal defal ci sa bopp. bu la neexee def ko nii nga sol mbaxana carrément def ko ci sa bopp muy góor muy jigéen maanaam kooku fu mu mën a nekk maanaam xel mi yow rek yaa ci ne. saa bu toogoon ba nekk ci jàmm nga bëgg koo dégg mu jafet boo jëlee téere bi maanaam guddi googu bu la digg du jàmm bu la gisul du am te baat bi yaa qahramaanu gi day def loolu su ko defee itam ma mayaat la beneen nopp goo xamante ne si maanaam xat balaxu lañ koy wax baat bi sëriñ yi nga xamante ne si dañu lasraar dëgg mhm. maam di gëstu xam-xam bu ñuul dëgg di gëstu xam-xam bu weex dëgg maanaam mhm. xam-xam jaral leen lu ne baat bii duñ ko joxe am na sëriñ su bari bu buñ jegee ma maye baatu xat balaxu gi danañ danañ danañ ma mere lu mel ne daaray daaray Nuuru bu ñu déggee ma joxe baat bi. Mhm. parce que dafa am lu ma ci doon leeral ci biir daara ji bañ jàppoon ne dama koy joxe ma faf ko bàyyi waaye fii laa ko joxe. déet waay. waaw su nekkee ne itam dangaa bëgg nit bëgg la jëlal baatub xat balaxu. Mhm. xat balaxu rek ngay bind. waaw maanaam baat yi ma lay wax jëfewut maanaam bind ko bi nga ko bindee ba noppi bindal sa tur ci biir bind turu ci ci biir su nekkee ne itam maanaam da bëgg a xëcc nit mu ñëw ci yow nga xam ne da bëgg mu ñëw mu si ba ci yow mm-hmm. tur yi su boobaa doo ko taxawal muy féete ka waaye dangay ngay dëppale ñaari tur ñu jàkkaarloo mm-hmm. waaw soo ko defee noonu ba noppi yow ci sa jëm mu jëlal sab sér wala nga jël sa maanaam sa tubay nga koy awee wala sa sab sér moom it da koy aw téere lay doon mm-hmm. bi mu noppee da ngay dem ba ca garab nga takk ko wallaahi li fekk garab gaa ngi yëngu xelam du jëm ci ko dul yow. ah bu lawee gore garab ga. maanaam li fekk mi ngi yëngu rek maanaam yooyu nag soo koy def da nga koy def ci garab goo xam ne. te digg yombul nit di ko gis maanaam tey doo ko def ci garab yi nga xam ne ku romb daf koy gis wala nangam parce que am na ñoo xam ne bu ñu gisee téere mën nañ ko tekki di xam waaye da koy yóbbu ci àll ba nga takk ko ci ak garab nga def ko nii ma la wax. waaw ah, baat bii ma di leen may nag moom alxuraan la moom boo ko defee ba nopp boo ko bindee ba noppi da koy boole ak meew maanaam nga lekk ko. Mhm. da ngay bind muddu xam mataani waaw nga jël miim gi ubbi ko jël eh, hal kubéer gi ubbi ko nga bind ci sa tur ak turu ndaw si ci miim gi deel gi bind ci turu yaayam ak sa turu yaay wutal meew meew nag nag boo ko mënee am wala meewum bëy ñaar yooyu moo gën moom nga ko jambe mhm. jambe ko ko jambe ko ko ba mu far nga naan ko lekkal kayit mu jeex kooku dootu la baax diggante ba abadan kooku mënatu laa bàyyi su la bëggoon bàyyi mënatu mënatu ko ma may leen itam turu jinne waaw woo xam ne waxoon naa leen ko day dox ci noog moom it turu jinne la woo xamante ne sii su nekkee ne da bëgg nit bëgg la rek topp la mhm. wan la gannaaw maanaam jublu la ci mhm. lum du tey mhm. jëlal sam xala yuusin sam xala waaw sam xala yuusin lu doy waar la ci loolu wallaahi a rabbil kaabati man noob duma ci wax nit loo xamante ne si su ko defee du ko gis lépp lu ma la ci wax boo ko defee gis ko lii ma di la mayit ñi ma koy defloo moo bari moo tax ma dëgg bëgg leen a jox yoo xam ne bu leen neexee ñu defal ko seen bopp parce que man tal naa yeneen. waaw xam nga. waaw sam xale yu seen boo ko jëlee moom ni nga koy def du wëlal sa tur ak turam boobu nag doo am turu yaay doo am turu baay sa tur ki ngay bëggante la parce que dafa am doole nag benn miim lay am. waaw yaa ngi dégg. waaw bi nga noppee itam da ngay wut moom nag da ngay wut tey dara ci neefere maanaam ganaar. Mhm. boo noppee wuta meew boo amee meew meew meewum xar baax na boo amee itam meewum nag baax na. Mhm. bi nga noppee itam da nga koy jàmbu siime ko cere fexeel ba gis ab xaj jox ko ko mu lekk ko. ab xaj ab xaj. ni xaj ji bëggee borom ni xaj ji toppee borom noonu la lay toppee moom sam xale yosin. moom it noob la gu doy waar. su ko defee itam bala maa jàll si ci euh, yeneen. waaw ma may leen genn salaatu goo xamante ne si su nekkee ne da ngaa bëgg bayre waaw bëgg am wërsëg mhm. bëgg a yëkkatiku ci kanamu nit ñi mhm. jalal allahuma salli ala sayidina muhammad rafa rafiu darajatil wadud boo jëlee baatub rafiu rek dafa lay jox trois cent cinquante waaw su nekkee ne dangaa ngaa bëgg yëkkatiku doo ko doo ko liggéey trois cent cinquante su nekkee da ngaa bëgg daraja mhm. maanaam da ngaa bëgg am daraja ci kanamu nit ñi dee ko liggéey deux cent douze deux cent douze waaw su nekkee ni itam da ngaa bëgg maanaam euh, bayre dee ko liggéey vingt fois boo xëyee vingt fois bu bu bu ngoonee vingt fois su nekkee ne itam da ngaa bëgg a boole yii yëpp ma la wax da ngay jël allahumma salli ala sayyidina muhammad rafiu darajaatil wadud di ko liggéey 583. chaque jour. chaque jour boo xëyee defal 583 bu ngoonee defal 583 wallaahi bis bi nga ko tàmbalee du dellu si te saw tur sa daraja sa am-am sa alal yokkut ba ñëpp naan maanaam maanaam lii lan la waaw. da nga mel ne ku takk dara wala nga sangoo dara ci kanam bi allahumma salli ala sayyidina muhammad rafi'u darajatil wadud 583 loolu am na talsam gu ci xamante ne maanaam am na turu yàlla wu ci ne 583 gii mm-hmm. am na turu yàlla wu ci ne woo xam ne du lu ñu wax ci média waaye turu yàlla woowu ku ko xam doo dem sawara turu yàlla woowu itam ku ko xam noppi ngaa ñàkk alal ci kaw suuf loo ci ñaan borom bi mu may la ko boo gisoon nekk nit nekk ci ay xat-xat sax nga nga defal ko tawasul kooku aajoom day faju moom 500 limu 583 bi. Mhm. dafa am yu baree bari am na talsam gu ci nekk goo xamante ne sii tey talsam gi soo ko amoon maanaam jigéen ñi maanaam di di ko doxal jigéen ñi moom maanaam yow rek la ñu dëgmal. lii képp a tax ñuy bëgg di waxtaan ak moom te yaakaar naa mbokki internet yi nga xamante ne ñoo ñu yàgg topp bu ngeen gisee jëmm ji xam li tax ñuy bëgg di waxtaan ak moom ndax xam-xam moo ñu ñor fu mu ne dañ ko fay jëli rawatina ci jëmm ji ñu jàkkaar lool ndax néewaana nga gis ci réew mi ku ko ëpp xam-xam toll ni moom réewaana néewaana nga gis ci réew mi kuy génne yii muy génne ci xam-xam émission bi nag mënuñ cee dugal lépp moo tax de tey la troisième partie bi yaakaar naa fi mu bëgg ñu jàll fa doog dem ci actualité mooy ci wàllum ngóora mm-hmm. keroog am na loo ci waxoon mm-hmm. Moussa ne ma boo demee nañ ci dolliwaat mm-hmm. ci wàllu ngóor a waa loolu pommade la boo xamante ni si keroog bi ñu toog fii ma di ci wax waaw pommade bi yaakaar naa li ne woon ci kër gi matoon na deux cent pommade waaye fi mu nekk nii tembe may waxee yow ñetti pommade moo fi nekk suba lañu war a tàmbaliwaat liggéey bi. la ilaha illallah li ko waral mooy. pommade bi ku ki xamul. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax may wax ku ko xas a jël benn yoon. Mm-hmm. yow dootuma la ci wax dara. waaw waaw. parce que chaque jours yow yaa may woo di ma ko laaj. di indi keneen. mboolem li nga xamante ne si dañ fiy ñëw di jàmbat mbirum néew kàttan dama lay jox ne la demal ca néeg bee nga dem. man la diw ko benn yoon. nga diw man la demal demal ba suba boo demee boo matee ñetti waxtu na ko raxas boo demee jaxasoo ak sa soxna boo xëyee boo booy ñëw nga door a jënd wala boo boo jënd siwut nga toog su ma ko joxee ni takkusaan fajar dina ma fëgg képp koo xam ne dafa jege pomaat bi dama koy may maanaam mu mu isin ko ba mu leer mu door a fay maa la wax ne itam képp ku ma ko jox mm-hmm. wallaahi la maanaam li ma la wax gisoo ko ci te mhm. yokkul sawra mhm. dëgërulu ko mhm. nga jàpp jigéen maanaam war ko bam ne la wàcc ma doyal naa waaw wallaay lansi woobu ma delloo la sa xaalis te pommade bi maanaam ndaw gim ndaw su ma la ko wanee da nga naan da nga naan da nga naan da nga naan lii jëralu ma sax def jéego benn pas waaye wallaahi lansim maanaam néew kàttan fu mu ko fekk wala gaaw a daanu yooyu daf ko dindi am naa sunguf soo xamante ne si itam sungufu néew kàttan la waaw bu nekkee da ngaa yoroon ndexum siti wala émoride sonal la mm-hmm. wala itam maanaam sa man niwu daa néew mm-hmm. wala say wallax njaan daa formé wul mm-hmm. wallaay lancé boo ko jëlee maanaam xam nga saa gis koo xam ne am na kattan yëpp waaye bu sëy ndox mu tuuti lay génn xam ne mën naa jaxase soxnaam lu yàgg te doom doom fekk ne man niwo moo formé wul wala wallax njaan moo formé wul kooku itam sungu suñu yor ko ko joxee waaw maanaam liñ ko ci wax maanaam bu ci amul résultat man dama laa wax ne lépp lu may jëflante ak nit moo xam muy nopp waaw moo xam muy pomaat moo xam muy kattan moo xam muy seet la ma ko cee wax bu jotewul bëtam maanaam na ma woo ma delloo ko xaalisam kayit rek laa la wax ne li ma ciy defal nit kayit mhm. moom kayit rek laa la wax ne mooy li nga xamante ne si su ma ciy liggéeyal nit li ma ko ciy liggéeyal dama koy defa ba mu gis mu door maa fay suñ déggooy ba ma seetal ko mbiram ba mu noppi ba xoolal ko ci mbirum kayit ba noppi fii rek li ma ko ciy defal billaahi wallaahi watallaahi dama la koy defal ba nga am résultat nga door maa fay te li ma lay defal ci mbirum kayit gën ngaa yàgg maanaam la ca gën a yàgg mooy ñaar fukki guddi ak ñaar ñaar fukki guddi première partie bi nga xam ne moo ci gën a gaaw juróom-ñaari fan la deuxième partie bi fukki fan ak ñaar la ñaar fukki fan ak ñaari du ko romb te amoo kayit boo amul kayit woo ma ne ma ne sëñ bi la nga waxoon amul man dama laa wax ne képp koo xamante ni si mas nañoo jëflante te la ca bëgg amoo ko porte plainte hmm? wallaahi lancim porte plainte ma maanaam loolu man rek man rek ngay dégg ma man nee naa la benn benn client boo xam ne mas nañoo jëflante te santu ma gërëmu ma amul muy góor muy jigéen. ndeysaan waaw man dafa am lu may seet ci sama digg ak sama borom ci ñi may jëflanteel te sëñ Lamine waxoon naa la fii ne man ñi may jëflanteel alul alal man ku neex a jëflanteel la waaw wallaahi damay faral di wax ne mbooleem sëriñ si maa ci gën a neex a ndax li tax mooy man ki ñëw ci man du ma jël alal di ko doxale sama digg ak moom waaye mm. damay jël yitte ak yaakaar ni mu fooree maanaam ma doxale ko sama digg ak moom ba keroog li muy am mu am ko man nee naa la bi may tàmbali oh. ñaan damay ñaanal nit mu maanaam njëgu ganaar la yor ma di ko ñaanal di ko ñaanal ba mën a jënd xar di ko ñaanal ba mën a jënd nag di ko ñaanal ba mën a jënd gëléem mm-hmm. loolu mooy nit ki su yorul dara mën naa koo ñaanal su yorees tuut mën naa koo ñaanal man nit saa bu góorgóorloo ci itteem rek billaahi wallaahi mën naa ko cee jàppale allahu akbar ndax man ndax man maanaam alal taxut may def lii may def daal dama bëggoon a jàll ci actualité seen ndomba yi nga teg mm-hmm. ma ni faw rek ñu wax ci ñaar ñetti baat doog a jàll ci actualité waa ndomba gi mooy ndomba gi nga xam ne moom la ñu wax takk të kii fukki guddi lañ koy liggéey ak benn yombul de. fukki guddi ak benn la ñuy lëggee ndomba gi ndomba gi soo ko takkee ku la lëggee dugg bàmmeel. Hmm? wallaahi lancim ndomba gi soo ko takkee. Uh-huh. ku la lëggee maanaam képp koo xamante ne si daf laa lëggee ñu sol. lu ma koy teree takk laa gisul si. maanaam ndomba la goo xam ne takk te tey su nekkee ne da bëgg di def ay. muy nekk jàmm amal ndomba gi. kaaraange la. Mm-hmm. dafa am lootor keroog maa ngi ko doon wax ci émission bi ndomba gi dafa am lootor boo ko takkee doo fekkee aw ay mukk fu histoire am mooy manifestation yii di xew ak yépp maanaam saa boo ko takkee lu metti metti metti wallahi ñay mucc ca ngay bokk ña koy nettali itam ca ngay bokk mhm. lépp loo xamante ne si maanaam day xew maanaam ci ci ci ci maanaam nit di ca lor wala nangam mhm. boo ko boo ko takkoon tey di tukki ala kulli hal di nga yegg la que day am loo xamante ne si yàlla suñ borom subhanahu wa taala jëmm moo koy def moo koy may lii may liggéey ci ndomba gii yàlla xam ne ne lë maanaam lii lu yomb laa koy liggéey te maanaam nit jox na ma ci million nit jox na ma ci nag nit weexal na ma ci xar nit weexal na ma ci ganaar nit jox na ma ci yére nit jox na ma ci lu ne ci jëmmi ndomba gii dama ne wax ne ndomba gii nga xam ne moom laa tuddee takk waaw ak ñaari gàllaaj may liggéey muy tënku mbaam mhm. ëpp na ci góor nga nekk ci àdduna dox ci kaw suuf te amoo ndomba gi ma lay wax ëpp na wala wala amoo tënku mbaam tënku mbaam moom gàllaaj la goo xamante ne si maanaam ëpp naa bañam mhm. waaw góor dafa war góor dafa war am gàllaaj waaw góor warut a ñàkk kaaraange surtout yow mi xam ne da nekk ci buntu am avenir mhm. bëgg a réussir avenir moo xam mhm. da ngaa sanc place wala nangam wala affaire yooyu mhm. wala nga tàmbali bëgg a taxawal dara nit ñi dañoo soxor bul bàyyi sa bopp noonu dafa bari yoo xam ne bu ñu la waxee ne nit ñi danañ ko def ci nit ku seen yoon nekkul da nga naan déedéet te wallaahi ñun ñii di ñaan ñoo ci xam dara waaw bu yàggul nit woon na ma di ma def loolu liggéey boo xamante ni si su ma ko nangu woon lan ma ca ma ci woon digg sama digg ak borom bi ma ca doon proposé te booba yàq nit dong moo tax mu di ko def parce que daa am kum woo di ko wax loolu mu ne ko loolu kenn laa xam ku koy def koo xamante ne si yaakaar bu leen ci déggooyee maanaam ku ku ko man te man bu loo xeeti liggéey yooyu daf dama koo man ba di ko jàngale samay mbokki sëriñ te du ma ko def laa ilaha illa allah ba ma wooyee ci jëmbam maanaam keroog un million nangam la ma proposé pour ma def ko bu ma ko defee ba mu noppi mu joxaat ma lu toll ne li ma ko joxoon ma ne ko sëñ bi maanaam yàq ñaari yi du ma ko def ndeysaan tas diggante <laughs> bi dama bëgg ñu jàll ci actualité ndax lu yàggul dara yaa ma fi waxoon Ousmane Sonko Adji Sarr le 16 bi dañ koy renvoyé. Mm-hmm. moo tax bi verdict bi wàccee rek sama xel daa dem ci yow. Mm-hmm. ñu jàppaat ko le vingt le mm-hmm. ma ni foog ma ñëw nga wax. ci le 23 sëñ la ma ca waxoon keroog it man yoruma jinne waaw man nekkuma koo xamante ne si tam damay tëdd di lay gént wala yooyu. déedéet. dama koo seet ci bànqaas xam-xam. seet dama cee man loo xamante ne si saa bu ma seetee mbirum doomu aadama lu ma la ci wax. bindal téere takk. day génn. ba ma ko seetee li ma njëkk a gis mooy procès bi dañ koy renvoyé. Mm-hmm. waaye bii ñu jëm itam bi ma ko seetee. gis naa Ousmane Sonko mu taxaw mbooloo mu bëri wër ko. Hmm? kon kon mën naa mu wuy mu wuy ji waaw naa mu dem. ndax gis naa mu taxaw mbooloo mu bëri ko waaye nag dem gi du defet ci moom. alhamdulilah ndam la ci moom kaaraangi la ci moom. ba tey dama laa wax ne. waaw liy fàdd Ousmane Sonko ci baatin. gisoo ko defaguñ. defaguñ ñu ba démb démb démb. waaw ci bi ma xoolee mbir Ousmane Sonko. waaw damaa gis mu gën a am kaaraange gis maanaam candidature am gën a valide maanaam ñu gën koo valider. waaw maanaam day mel ne mboolem ñi nga xam ne maanaam boo xoolee mbiram daa mel ne Macky Sall mii sax Ousmane Sonko gën a bokkul. ni daa mel ni Macky Sall Ousmane Sonko moo ko gën a bokk ci biir élection yi. wallaahi lancé Ousmane Sonko kay man ci jëmmam man ci jëmmam bu may seet mbiram mbiram dafa may jaaxal li tax mooy damay xool ne kii ni mu baree noonu. kii ni ñu koy faagaagale kii ni ñu mm. koy fàdde mbiram leer nañ ba noppi saa boo xoolee mbiram muy gën a taxaw fii maanaam daf may jaaxal démb moom jàppoon naa ne Ousmane Sonko lu mu néew néew su ma xoolee mbiram danaa fekk mu wàcc waaye wallaay la bi ma xoolee mbiram mbooleem ñi nga xamante ne si ñi ngi taxaw nga jël seen mbir maanaam xool ko boo wowoon gone gu ndaw fële boo ko génneel ma fii tur Ousmane Sonko mooy génn tet mais damay jàll ci Adji Sarr mm. sëñ bi ndax Adji Sarr boobu ba léegi perturbé na Sénégalais mm. am aji indil aji muy jigéen. pour une ah. première fois deux ah. ans ñu koy mbamb benn nit. aji saar Sarr lakkal nañu waaw mooy aji mi aji fu mu jugee. <laughs> ah ay kii kii nan ko delloo ay mbokkam. Mhm. xam nga tey yow euh, laafe honneur benn ndaw 17 personnes faatu ci. allahu akbar. ci loo xamante ne si waxoon naa ko. Mhm. dafa bari ñoo xam ne ay audio lañ leen fii ak ay publication mhm. yaa ngi dégg. ñi ay commentaire waaw. ñu ñu tëj leen ci. Mm-hmm. nit taxaw carrément def ay audio. ñu woo ko ne ko yaa wax lii weddi de waxul dañ maa montage suul dara dane man la waaye dama doon kaf. xoolal audace boobu. mu kaf ci fukki bakkan ak juróom-ñaar yu yu mu kaf ci ñaata doomu aadama yu blessé. mu kaf ci suñ takk der yi ñuy xëy di leen teg ci mbedd mi ñuy sànnante ay lacrymogène suba ba ngoon. allahu akbar. loolu ñaaw na torop torop ci réew mu mel ni Sénégal ñaata arrestation itam. Macky Sall lii ma lay wax nag man dama lay wax personnellement. waaw lii nii ci jëmum nguuru jaru mhm. lii ci jëmum bu dama laa wax ne même su nekkoon ne affaire bi dëgg la. waaw nga gis ne ay sénégalais ñi ngi ciy loru. Mhm. ñi ngi ciy faatu ñi ngi dellu gannaaw. Mhm. maanaam lii waroon na laa mën a jaral loolu rek maam sauver bakkanum nit. waroon na laa mën a jaral nga nga nga jël lépp bàyyi mu sedd ndax nee am na ay dossiers yoo xam ne moom moo ciy teg loxo moom moo ci teg tànkam gis nga ni mu tegee ci tànkam na mu jël na jël bii mu teg ci tànkam bii na xool li ci dee ñooñ ci dee ñaata nit ñoo toppoon seen gannaaw mhm. ñaata nit ab fi mu ne tey boo rayee benn nit bul jàpp ne kenn nit nga rey boo rayee benn nit mel na ne umma islamique bépp nga rey waaw waaw yaa ngi dégg maanaam faat bakkan moo moo tëdde noonu koo gis mu li tax yàlla ne maanaam ku rey nañ ko rey boo rayee benn nit wa ma nax yaa fakkaan na fakkaan na xel naa sa jame an fi ne boo dundalee benn doomu aadama mel na ni ñëpp nga dundal waaye boo reyee kenn mel na doomu aadama yëpp nga mhm. lii nga teg ci sa tànk organiser élection yu leer ñu war a bokk ñëpp bokk nga rafetal sa gannaaw boo liggéey nga mën a am way wu rafet boo liggéey ñu mën a defar fii lu ngande man la ko tuddi moom Macky Sall waaye dem ba noppi Sénégal la yëpp bool bëtiku di la di la toppaat ak fu ñu la tuddee ñu ne acam man de yéene mën a loolu te wallaahi la azim nag nguur gi day jeex de mhm. nguurug yàlla rek dul jeex walillahumma malikal mulk demal nga jàng histoire Firawna ak Moussa dégg naa la nga di ko nettali loolu doy na sëkk leçon waaye am daa ma bëgg tey sëñ bi nga tëjee ci ki nga xamante ni moom mooy avocat wu Adji Sarr bi di maître El Hadj hmm. ak keneen hmm. muy général Moussa Fall ndax hmm. jamono ji mën naa ni général Moussa Fall bu nee tekk réew mi ne tekk maître El Hadj tamit bu nee tekk réew mi ne tekk waaye moom moo taal bi maître moom dañ koo xabtal Maître El Hadj dañ koo xabtal li muy def yëpp tey ko moo tax man daanaka ay waxam sax du ko. est-ce que du da nga koo a yërëm sax moom benn mais de rànki ñor mooy maanaam na jàkkaarloog Ousmane Sonko Ousmane Sonko wax <laughs> rek moo <laughs> moom bis boo amoon benn confrontation ak Ousmane rek a wax moom xolam seet moom ñu tëj Ousmane Sonko maanaam amul ko njariñ dañoo wéer Adji Sarr amul ko njëriñ moom daa am lu lum ene Sonko rek. moom eh, moom El Hadj Diouf moom El daa am en bu mu jàppal Ousmane Sonko ci biir xolam rek. Mhm. te bëgg a jàkkaarloog Ousmane Sonko bokk ko. loolu rek mooy moo mooy yitteem. mais le général Moussa Fall jamono ji ndax jamono ji moom mën naa ni bu nee armée bi rangé wu leen ñu rangé wu. Mhm. bu nee leen tekk ñu ni tekk. waa xam nga ku mel ne général Moussa Fall ba li njëkk ci moom dafa war a xam boppam. Mhm. xam ngi boppam mooy mu xam lim jiite. ndeysaan. xam ne tey réew mu toll ne Sénégal. Mhm. fukki million ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama di fi yeewoo. Mhm. ñu ne la maanaam jàmm ji nekk ci seen lo ci seen jàmm ji. sa loxo lañ ko ci sa loxo la ne. jàll jàmm ji leen yàlla defal maanaam lépp da koo teg ci sa loxo. Mhm. boo xëyoon bëgg réew mi am jàmm lépp maanaam réew mi am jàmm yow war ngaa mën a xam ki nga doon. ndeysaan waroo mën a topp itam benn doomu aadama rek di ko dawal ci moom jàmm muy muy Macky Sall. ñun ñii itam suñu jàmm ak suñu kaaraange da nga cee war a dox bu baax yàlla xam na ko nag itam. kon général Moussa Fall hmm. wéetal cim néeg rek nga hmm. toog nga jàngat nga xalaat bu baax a baax a baax a baax nga xool yow yaay kan hmm. nga jàngat liñ la jiital tëbbu la ko mooy lan réew mi ku la ci ëpp ab dayoo amul parce que kaaraange gi yaa ko yor te jàmm bu ko nit ñi amul maanaam mënuñu xëy dem jàngi normal mënuñu xëy dem faju ju normal xam nga tey boo xoolee liñ taal fii ci biis ci Kër masaar lay xew si gen soor waaw nangam yooyu yëpp fi mu ne mënoon naa ñàkk dëgg la te loolu lépp nag. Mhm. responsabilité dafa aju ci say loxo. moo tax ma di la wax ne wéetal ci mu nekk nga xalaat bu baax a baax a baax yow yaay kan. boo làmbee sa dënn ba xool yow yaay kan rek di nga am personnalité boo xamante ne si maanaam dina dikkaat ci yow dina am euh, daraja joo xamante ne si dina dikkaat ci yow te su boobaa mën ngaa taxaw sauver sa réew. sauver sa mhm. doomi réew yëpp. Mhm. ba nga xamante ne si boo liggéey ku lay ëpp aw way wu rafet ci Sénégal gi du am. macha allah lii yaakaar naa tax na ñu bëri di ñu laaj ne faw mu génn te bu génnee bégal nit ñi moo tax ñun ñëpp di ñu ko laaj doyaloo leen xam naa loolu doyalu ma nit moo tax dañuy tënk émission bi fii dem ba beneen yoon wa ndax sëñ bi dafa am benn xalwatu goo xamante ni faw mu dugg ko te ndax jaami yàlla ñoo ko soxla te bu ko duggee bu génnee itam dinañu waxtaan ci leneen moo tax dañ koy bàyyi moom sëriñ Cheikhouna maa ngi maa ngi jégalu di tàggatoo ci daa bari ñoo xam ne dañ may jàmbat waaye baatu sëñ bi kenn mënu jot Euh, ñàkk gee jotit laa bëggoon a leeral nit ñi maanaam ñàkk gee neex a jotit li ko waral moo loo def noonu la sëñ bi acca damay damay wax ne boo ma jotee rek am nga tawféex ndeysaan loolu nag dama ko ñaan suñu borom subhanahu wa taala ba may ma ko mm-hmm. li tax naqaree jot gi mooy man su ma nit xasee jox alalam daf may yenn kooku li fekk dégguma ci moom baatub jërëjëf sama xol du sedd mm-hmm. moo tax fi mu ne tey yii saa nit yónnee ma lu ndaw mu jaral ma ma tëju yii saa nit yónnee ma lu ndaw mu jaral ma maanaam du ma wuyoote kenn li fekk moom aajo fa juwul maanaam li may liggéey dama ko organiser. Mhm. man bokk ma ak Serigne Sos nga xam ne ñëpp a leen di woowandoo ñu bëgg ñaan ñaanaloo ñëpp. Mhm. man bu ma xëyee nee naa la noob yi may defar bu ma xëyee juróom-ñaari nit laa koy defaral bés bu yàlla sàkk juróom-ñaari nit képp laay noobal. te nag te heure bu ma xëyee lu mu gàtt gàtt danaa gis téeméeri nit di ma koy def loo waaye xam nga lu tax may jël par juróom-ñaar. waaw damay bëgg lu ma ci wax nit loola ma mën koo def. Mhm. parce que as gor bu waxagut maanaam moom moom boppam waaye bu xasee wax rek moo dugal boppam. waaw te damay bëgg nit kii su ma ko waxee ne ko boo ma yónnee ma def mhm. mu yónnee ma la bu ma yónnee la ma ko yónnee ma defal ko su nekkee ne itam jëmmi seet bés bu yàlla sàkk fukki nit ak ñaar la ñu seetal fukki nit ñaar fukki nit ak ñaar bu nekkee lu jëm ci mbirum ak mbirum euh, euh, yo yooyu moom loolu altine ba altine lañ koy def mhm. yaa ngi dégg li ëpp ci li ñu liggéey mhm. mooy mbirum nopp bis bu yàlla sàkk juróom-ñaari nit lañ koy defal bu dee mbirum seet bis bu ak ñaar yooyu nag bu xasee mat rek maanaam dañuy daal di arrêté ba suba ba subaat incha allahu taala yooyu nag damay wax ne heure bu ma xëyee hmm. ku ci yàlla nërta boole doo ci bokk nit mën naa war fu ne dawa daw ba jaaxle te duñ jëflante li koy hmm. waral mooy yàlla daa dogal mbiram naragu da faj waaye wallaahi laxasim képp koo xamante ni si mbiram daa nar a faju hmm. bu xëyee gis ma du ma romb déedéet incha allahu taala noo ngi sant ñëpp te di leen gërëm di leen wax jërë ngeen jëf mi ngi noonu internet Allô Sénégal ñi ngi leen di di leen jox dig daje ëllëg beneen émission jërë ngeen jëf Thank you.